teg na ñaari glace demaat na mais mais mais mais Khalil. waaw waajtaayu combat bi. li si des bareetul moment bi ñu toll mais moment bi ñu toll moment boo xam dafa difficile moment bi ñu toll nii ci la ñuy xamee jàmbaar yi ci jamono jii ñu toll nii tembe ci la ñuy xamee jàmbaar yi tey euh, lan moo des. instant yii nii moom glace baa mbay yow daanaka instant yii gars yi moom li ñu deful boobu instant moom ay finition rek moo des rek yàlla ay finition rek moo des. wallaahi wallaahi taala li des yëpp ay finition la. ana jàmbaar yi. jàmbaar yaa ngi nii de ku nekk ngi gis seen rëq ku nekk ngi gis seen rëq. gars yaa ngi làmb de gars yaa ngi làmb de gars yaa ngi làmb bu baax a baax a baax a baax. wallaahi wallaahi mais ay waxtu rek ay waxtu ay waxtu. ay waxtu luy xew ay waxtu luy xew ay waxtu luy xew. déglu ma taxaw déglu ma taxaw arène nationale yaram daw ma xool suuf bu baax xool tribune bi ma xam ne instant ni sa waay lu mu métti métti métti métti métti sa waay da koy indi da jëli. billaahi wallaahi taalaay. ba nga xoolee arène nationale bi gis suuf nu mu mel. gis suuf nu mu mel. ma xool stade bi gis nga tourné xool ko ma xool sa suba ak lu ko nar indi lu lu ko naroot wuy si kooku mënul ñi baale lenn lu dul ndam ndam kase billahi wallahi taala amul leneen du mënul ñi baale lu dul ndam te incha allah bu yàlla dañ koy jëli gars yi pare nañ de Fallou mbégte képp lañ nam bëgguñu leneen bëgguñu leneen mbégte dong lañ nam barki sëriñ kese ndam kese lañ soxla loo leen soxla yéen ndam rek. loo leen soxla ndam rek ndam. loo leen soxla kese amul leneen. kese leneen. mais loo leen soxla. ndam rek. mbégte képp. waaw su xeexee ñu duma ko su bëree ñu daan ko.